du kontaan xam nga ñàkk xam président Macky moo waral ngay toog di wax yenn yi parce que je l'avais j'avais l'habitude de le dire le président Macky Sall c'est quelqu'un ki nga xamante ne boo toppee yoonam historique politique am di nga xam ne dañ koo former di nga xam dañ koo tàggat te xam nga tey damay ñëw tuuti rek ci ginnaaw euh, diggante président Macky ak Abdoulaye Wade président Macky dafa dem ba benn instant boo xam ne lu tax ab Ablaye Wade soxla woon ko am ci moom mbégte da koo déggal te politique ku koy def da ngay déggal sa nit waral ma doon wax naa le président Macky Sall a été président avant qu'il soit président ci nguur Ablaye Wade tey 2007 directeur campagne gagnal Ablaye Wade premier tour mille 2012 mu jël nguur gi toog di ko doxal normalement à la lettre boolewu ci wax xam nga ku dul wax ak kuy wax bokkut ku gëm boppam ak ku gëmul boppam bokkut président Macky Sall daa gëm boppam ñi mu àndal dañoo gëm seen bopp. c'est quoi le mooy damay ñëw parce que ñoom tey ñun ba tey dans le Benno Bokk Yaakaar dañoo bokk ndey bokk baay. déet waaw nànk rek dafal nànk dafal nànk ma ñëw dafal nànk ma ñëw rek am na loo xam ne jarul yàkkamti loo xam ne dañoo bokk ndey bokk baay. Mm. ba tey ñun ñi ngi suñu lancé que ne président Macky Sall jël na. le premier ministre Amadou Ba di suñu candidat jiital ko ba tey ñuy ànd ak moom c'est normal dans une famille ay nit kii jaar fii kii jaar fii c'est normal mais ba tey ñoo bokk benn objectif. muy lan. mooy Sénégal bëgg Sénégal parce que nag la nga nàmp la nga nàmp rek rek rek moom ngay tari. boo nàmpee soo nàmpee ci li nga xam ne moom mooy dëggu ak man politique moom ngay tari mais boo nàmpee ci naaféq ak loo xam ne wax tey dindi tey. moom ngay tari ñun nàmpuñu ci loo xam ne ay waxantu la ñun dañoo nàmp ci doxal. politique mais c'est quoi la politique la politique c'est l'art de faire la c'est non c'est quoi la politique. c'est dafa attends dafa ne politique. la politique c'est l'art de gérer la cité donc bu ma nee politique la c'est comme si day jéem a yàq baatu politique il faut qu'on soit yaa ngi comprendre waaw da bàyyi ma yeggale yaa ngi comprendre donc ñun tey assemblée bi ñan ñoo fi doon toog naan ñu ëpp majorité ñu fi doon toog naan di fi riy làmmiñ naan ñu ëpp majorité tey la ñuy dóor président Macky Sall est-ce que mës nga gis ba ñu dalee def élec euh, assemblée bi ba tey mës nga gis kenn koo élection bu ñu teg ci biir assemblée bi ñun benn boo ko yaakaar ñàkk ko ñan ñoo fi xulo ñan ñoo fi xeex ñan ñoo fi tas ñun assemblée ba tey fi ñu toog ñu ngi fa toog ah bougé wuñu à ñu ngi toog fu ñu toog jàpp suñu ñaambur fas yéene jiital li nga xam ne mooy le PSE du plan Sénégal émergent ni ko président Macky Sall waxee. lan moo fi émergé. waaw li ko li fi émergé xam nga xam nga li fi émergé dafa baax xam nga li fi émergé waaw da ngay déglu da ngay déglu wax nga ma déglu la da ngay déglu da ngay déglu yow ci ay wax rek ay daal ci wax ci jëf Sénégal ñuy seetaan da ngay déglu fexeel ba li ngay wax moom da ngay déglu man je te connais da ngay déglu ñun ñëwuñu fii pour ay daaxante wallahi azim mais waxal loo xam ne dafal naaj rek dafal naaj dafal man bi li nga xalaa jóge alors alors on s'écoute on s'écoute un peu on s'écoute les nerfs sont un peu tendus non xam nga dafa teel donc ñu waxtaane ko rek mais li mu wax aussi dëgg la courant ak ndox réalisation yi xam nga tey xam nga tey fi nekk di def bilan même dans une famille même dans une famille le père de famille a des problèmes pour gérer sa famille adduna bi kenn moo mat le mu yàlla suñ borom kenn kundum kase mooy def mu baax mais bu fekkoon ne président Macky Sall baaxut bo dafa bon de jamono bi mu nekkee Ablaye Wade ba tey ak man de yàlla ak ni ko askan bi bëggee du toog di doxal. kan lañ bëgg. Macky Sall. man moom laa bëgg. waaw yow bëgg léegi Sénégal mooy yow. waa léegi dafa naaj non ko bëgg. ban Sénégal yaa koy wax léegi lan lañ fa perte. moo fa tas. lan moo ñoo jaar góor ñoo droit bi ñu woowee li nga wax léegi bi ñu ne président Macky Sall bu mu woowee Diallo ñan ñoo dem mais loolu ci ci lan la. waaw yow xam nga la mooy problème bi dans cette vie. il faut dans cette vie dans cette vie il faut être objectif et réaliste. d'accord suñu nguur bu jeexee dañuy xam ne jeex na. mais jamono jii moom. moo tax président Macky Sall yet bi la yor. di varaj varaj. mu leen di neex mu leen di naqari. mu ngi doore de. xam nga varaj varaj mooy lan. ñàkk dégg-dégg moo tax. sa ñàkk dégg-dégg damay déglu. sa ñàkk dégg-dégg. sa ñàkk mooy lan. mooy que ne varaj bi ma lay wax mooy waxuma la di dóor ay yat nit ñi di ko yëg. mooy ci ay réalisation. ci ay mbir. kilifa dëgg ci biir que day am fulla ak fayda. fulla bien léegi da ñuy may ñu aussi ñu placer